technique tactique. Mhm. pour nga man koo fayeeku te doo ci am benn problème mais nag xam nga lu ko indee. Mhm. redresser fonds commun yi rek. comme boo redressé teg amende. Mhm. ti buje fonds commun bi moom. fonk dañ ko fonk koo xam ne waaye impôt demoon buñ sañoon kenn du fay. bañ mën a redressé. suñ sañoon kenn du fay. léegi nag logique boobu lañ nekk nañ dem bëggoon naa wax tamit ci mbiru étudiant ñooro yi ñu génne. non dinañ ko boros. seen kër ah, yi bëggoon ko ci wax man waxuma ko sama chapeau bi nga bëgg see wax. non parce que comme yow sa débat amatul contrôle fu la neex jaar baal ñu fétal rek. xam nga temps bi dafa te yow ah, loolu yëpp dañ ko tënkoon. ngay génn ay sujet yoo xam ne kenn xamul ay pelante yu bees que si ay pelante yu bees yow tamit euh, saaw la. Hmm. Euh, information boobu nga xamante ni démb yaa ngi koy suivre forcément ban appréciation nga ci am non xam nga redressement. Mhm. xam nga luy redressement. yuy mhm. hmm? redressé. da nga ko koy wax ci wolof jubbanti. Mhm. man nga yore société. bi nga koy teg. dafa am looy joxe ci capital bi. même bu dee plateforme bu dee usine bu fi teg ak lu mën a nekk. parce que emploi yooyu soo de demoon xëy ba bëgg a tëj wala nga def ak caay-caay wala nga bëgg a def nangam ak nangam. yoreel ay emploi wala nga yoreel nangam yooyu dañ koy jaay. Mhm. maanaam war bu dee ay biens yu fi tegee bu dul biens yu fi tegee la nga doon joxe. bu mhm. fekkee état bu responsable mi ngi fi amoon. parce que mhm. dafa am capital looy joxe benn genre garantie boo fay tëddal. tey bu fekkee comme société bu mel ni. Dakar naaf ñu ne la de milliards mooy garantie am loo xam ne mi ngi ko fa teg. xam ne bu yooyu demee ba am en cas de wéyaa yooyu. beneen bi mooy benn plateforme la. nga redressé ko mën fay. mais du yaa ngi fi gis sunu bet ak leneen ak leneen moom xaj na nu mu tudd xbet ak keneen ak keneen am na ci boo xam ne Lonase ko moom ak yooyu. ñooñu ngay jëlaat. Lonase continuer di ko doxal. soit bu ñuy wax redressé. baat bi bu koy jóg parce que dañuy xam ne entreprise borom entreprise bi la. Mm-hmm. mais am na ay liggéeykat. Mm-hmm. mais borom entreprise bi mën naa ubbi capital bi. Mm-hmm. tey mu ne ñëwoon fi ubbi capital bi yow mii nga dugal ci sa xaalis. Euh, laay dugal ci sa xaalis kon kooku warta dem lor ñu maanaam tey moom day war a fay impôt dagg ko def ko ci poosam te fekk mi ngi ko voilà ma jël comme kaawu Ablaye si laa des médias ak yooyu léegi ñooñu war a dem fay impôt pas des médias E-Media Events E-Media astaghfirullah E-Media laa bëgg a wax mm-hmm. Events voilà damaa jum mm-hmm. euh, lu mu a nekk bu ma bu ma ko natt ci e sax parce que dama bëgg mu gën a taxaw parce que bëgguma muy viser kenn wala yooyu mm-hmm. comme par exemple ñu ut suñ benn kër bu tudd Saa Wolof TV. waaw Saa Wolof TV Binta Waale Binta Laale def na ci xaalis yow def nga ci sama xaalis. Mm. ngeen nekk ci ay actionnaire ñu wut ay liggéeykat yuy liggéey. Mm. liggéeykat yooyu di liggéey ñu ñuy fay impôt man ma war koo fay ma damm ko def ko sama poos maanaam yéen porté naa leen procédures yéen ñi ma bokkal kees gi te yow du ngeen ci dara dama ko yëgut. Mm-hmm. mais liggéeykat yi fi nekk tamit maa ngi leen ne rol léegi mm-hmm. la moo redressement foofu lay amee solo. mooy da nga koy jubbanti. Mm-hmm. ñii ñoo bokk société bi kat waaye kii moo dëngal bu ñu demee ba xam loolu moom la yat wi dal. état mën naa dem yegg ci loolu muy wax sax nga xam ne tey douze milliards laa war a fay sax. Mhm. mu jëlaat beneen xaalis dolliwaat pour kër mhm. di dem. mooy. Mhm. redressement. voilà. d'accord mais mais mais moom en fait parce que bu demee ba ba jàpp ni parce que délit de fuite mën nañu ko ko toppee. parce que ah, bien sûr wax naan da ngay da nga bëggoon daw donc. xam nga tey bu fekkee ne depuis deux mille vingt et un lañ ko xam nga ne léegi wax ji mooy manque de sérieux bi fi suñu nguur yi nekkoon. xaalis bu mel noonu nu ko nit mën a yoreelee. entreprise bu mën a yoreele am na kuñ la wax cent cinquante milliards waxaat la douze milliards waxaat la te alors que koo mhm. xam ne par laps de temps yow yaa ngi nii ñun bor yi ñu fay banque mondiale mhm. maanaam bor yi nga xam ne ñu ngi koy fay mhm. banque mondiale wala ñu ngi koy fay BAD wala BID wala yu demee noonu wala eurobond wala yu demee noonu mais dafa am taxe su échéance bi jotee te fayuñ ko day yokk waat léegi lu ñun loolu lan la ñuy doyee moo ngi suñu budget bi da ngay nga da nga koy prévoir ne budget bi lii la par exemple nga ne woon mille 611 euh, virgule 1 milliard 2023 2022 2023 mais loolu ñu estimé woon yeggu fa bu fa yeggul da ngay dem ba mu yàgg di defaat li ñuy waxaat euh, euh, joyantiwaat mhm. ensemble pour jëlaat affaire yi dajalewaat ko comme ça ministre ministère sangam mhm. defoon naa fa deux cent cinquante milliards léegi finalement du ngeen mën a am loolu wala nag wala nga daal di leb ci beneen budget bi ñëwaat mhm. beneen budget bi ñëwaat te loolu kon mën na ñàkk léegi lan moo lay faussé ku mel ni genre xbet bi. waroon la fay ay milliards fayu la ko te yaa ngi ko ci boole woon. te pourtant temps boobu mu lay jural ngay demaat di leb képp mu lay amal déjà porté na la procédure. Mhm. moo tax foofu. 12 milliards yooyu rek même bu ñu ko xoolee moom la ñu war a fay du doon loolu rek dafay amaale ay pénalité mhm. moo tax ku yaakaar ne loolu bu paree day tëj ay emploi wala day nangam ak nangam. Mhm. Euh, bon kenn ku nekk ak sax xel mais bu xel. Ah, doon jaay mais forcément dina am ay conséquences. parce que waaw non conséquences dañ ko dañ ko parce que booy ubbi entreprise ci am garantie booy joxe. te loolu ngay def dafa am tamit fooy joxe àdduna bi nit ki daf fi nekk di dund dafa am fii leneen am fee leneen am fee leneen suñ la téyee xam ne suñ xaalis lañ bëgg a jël mhm. ba ñu ñu ñu téye la lu toll noonu danañ mhm. xool foo ko mën a am da nga ko indi teg ko fi mhm. loolu mooy li nga xam ne moom yoon suuraale na lépp réew mee jaarul woon yoon rek waaye yàlla xam na ne bu ñu doxalee tuuti nit ñi danañ xam ne jaar na yoon gis nga njëlbeenu tor toroxtaange day mel ni day neex mooy li ñu daloon mooy ñëw di saax saaxe di dof dof waaye njëlbeen goo xam ne nii nit ki dafa nar a tedd ëllëg balaa ne nux nux ni war war mm-hmm. ni di danaan war war waaw mais bu fekkee lu ma bëgg lu ma rab c'est que point boobu nit ñi dañ ñuy commenté mais parfois duñ ci bàyyi xel redressement fiscal bi am ma solo mais bu ñu toppee entreprise yi même bu dee entreprise étranger yi ba ñu sës si miir bi ñun suñu ndaw yi suñu mbokk yi ñoo ciy liggéey bu ñu la sësee si miir bi ñoom ñu bàyyi seen entreprise dem tukki léegi ndaw yooyu kan moo leen di jox. léegi entreprise bi yow da nga ko ubbi. Mhm. lekk impôt ci lu la tayeef am. Mhm. mu am ñu fii liggéey nee naa la am na garantie mhm. booy joxe bi nga koy ubbi. état kër googu mën naa continuer redresser mën nañ koo jël ci yow yow nga xam ne da ngay simpee ko yow doonatoo ci dara yow nga perte société bi. état di ko doxal wala keneen ku bëgg a ñëw ràngu ñu ñëw gàcc la ko pont di ko contrôler loolu gisoo ko fi ba tàyyi noonu lay demee boo man ngaa dem ba fayit société bi dangay ngay dégg ñu naan la kër gii di woo ko moomoon bu ñu yeggee léegi boolu Sandaga Lamine Gueye moomoon la immeuble boo xam ne ko ko moomoon ñàkk na ko ak yeneen ak yeneen. Mhm. yoo xam ne ki ko moomoon ñàkk na ah, ko. parce que moom laa lay euh, wax moom laa lay wax yàlla tere ñi fi faatu yàlla tere am na ñu fi faatu. Mhm. bu yàggu damay bañ a tudd tur parce que gànga la mooy yooyu yoroon benn entreprise boo xam ne ñu pare ñi leen doon suñu naroon a séddoo xaalis bi entreprise dootul mën a dox état boobaa day am obligation wala woote tijji ko xam nga am na yeneen milliardaires yoo xam ne bu ñu sañoon dugg ci société sàngam ñoo ñu indi seen xaalis entreprise continuer di dox mm-hmm. noonu la entreprise di doxee mm-hmm. bokkut ak ku yore sa benn taabal fii rek wala yu demee noonu comme ni mais nag xam nga liy liy cat li mooy mm-hmm. nit ñi dañuy def politique d'accord te te te te te du ñu dem formé wu ci yenn yi gis nga wax dafa am importance maanaam booy wax ñu lay dégg da nga am pour documenter wu maanaam nekkul ne da ngay xam lépp mais dafa am loo xam ne juge yi ñuy wax. Mhm. surtout yi nga xam ne moo concerné jamono fi mu toll. dafa am mhm. yoo xam ne béyaabaa la kenn waru ko ignorer comment. Mhm. looloo tax nag yenn débat yi bu niveau bi kawee rek. am na ñoom dañuy am jafe-jafe. malheureusement. Ousseyn première bet entreprise internationale national. Sénégal mënu ci tous naar bi daw a tax man ko téye may mën a ndur xam a daw. TFM mënut a naar bi international réew yëpp la ne bu tëjee bi nekk Sénégal loo ci mën da koy tijjiwaat fii da nga ñeme. état dafa am doole boobu moo tax mu jàpp ko bu ñu amoon lu ñu téye ci moom duñ ko kii xam nga julay bind lay texte ngay ñëw di taree ko bërigu bu diis du yëngatu demal d'accord euh, Binta ma ne xoolal mm-hmm. entreprise EFAS mm-hmm. wala matière bi ñëw nekk Sénégal SA dañ ko essaliser mm-hmm. même boo amee branche fee wala nangam li ñii di def ngay def dans un état normal dafa am garantie boo xam ne tey dama ëndaalewul sax sama yenn euh, lu mu tudd bon de commande yi ma yor ci benn société bu may tegal mais dinaa la wanal ci suuf gis nga fa ñuy bind ni ne yaaba da nga fay gisaale ñu defaale capital bi société boobu am ak yeneen ak yeneen yoo xam ne mënoo rëcc ci hmm. état ngay waxal d'accord Binta hmm. ñu ngi ci catal ah, waxtaan bi Ouzin Ndiaye juste rek daal di fàttaliwaat bu baax a baax démb moom hmm.